fu ko waay natt daan na moom professeur Moussa Seydi ñu laaj ko na ko yi ndax am na effet secondaire nee amul effet secondaire yu tax ñuy wax moom professeur Moussa Seydi nee na njariñul bi maanaam mooy soo vacciné wu da ngay développé li nga xam ne mooy ay anticorps maanaam sa yaram dafay am yu fa nekk yoo xam ne ñoo lay protéger ba ci coronavirus bi moom professeur Moussa Seydi xëy na wax ne coronavirus ak li nga xam ne mooy Ebola nee na bokk ko ci réewum Sénégal si ndax vaccin la yoo xam ne yu baax a baax la te amul lenn loo xam ne mën nañu ko see di nattable yéen kaay gi di xëy séq waxtaan yaatu ak Alioune Tine Alioune ci Sénégal ñi nga xam ne ay adversaire politique lañu daat nañ leen di éliminer ci anam boo xam ne jaarul yoon te loolee ci boppam démocratie nanguwu ko Alioune Tine ne réew mi démocratie mënuñu ko fee wax te duñu wax opposition te lii nga xamante ni moom la xamante ne mbir mi muusul te doy waareel nii maanaam ci histoire politique Sénégal en tout cas nañu def ndànk nañu def attention yéen a kaay gi xëy diñu xibaaram moom wal fajre nee na nag mbir mii nga xam ne moo xew ci mbir yi Ousmane Sonko gars yi dañu doon wax mbirum privé la waaye nag mujj nañ koo def mbirum état ndax plateau télé rajo yu jamono ji ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky maanaam ñoo ko sam ñoo ko fees ñoo say défendre yéen di enquête nee na en tout cas li am ba des sal mbir mi comme guerre guerre bi nag ñenn ñi ñoo koy amal ci réseaux sociaux yi ñenn ñi ñoo ngi koy amal ci mbedd mi ñenn ñoo ngi koy amal ci plateau yi a kaay gi di enquête nee na en am ba te ñu mën ko wax askanu Sénégal mooy réew mi ma ngi toll ci haute tension haute tension fi la Sénégal toll mbir maa ngi jax-jaxe réew mi tàng na jër yéen a gi di la turbine nee na en bii nga xamante ni moom la dugg nii semaine bi moom lu nekk mën naa xew ci réew mi yéen a gi nee li tax mu mën a xew nag mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne war nañu ko yóbbal nag li nga xam ne mooy jàppale ba te jàpp gi nga xam ne ñoo ngi koy jàpp ay jege ñaale Ousmane Sonko te ci semaine bi soo muy tulee danañu jàpp Ousmane Sonko ak mer mi nga xam ne moom la jàngalekat di mer moo tax yéen a kaay gi di ak enquête ak la Tribune nee nañu en mbir mi fi mu toll jamono ji maanaam doy na waar lii raam sañag jëm te bu fa amee kër du baax yéen a kaay gi di Direct News nee na en tout cas daal li am ba des mooy Ousmane Sonko jamono ji kaful réew la maanaam Ousmane Sonko wuy ji ak ko ko rey la yemale en tout cas daal ah attention attention bale nag boobaa bu amee ci réew mi réew mi kenn dootu ko mën a gouverner te nag Ousmane Sonko wax na lu leer nee na nag bala ñu koy liquider maanaam ki koy liquider daal nee na moom sax jàpp na ne Macky Sall la ay loxoom dina tax rëpp yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na nag li nga xam ne mooy l'irréparable nag bala muy am war nañu ko moytu Assane Samb nee na jamono ji lu doy waar mën naa am ci mbiri Ousmane Sonko moo tax jamono kenn wut ta noppi kenn wut ta noppi ci mbir mi nga xam ne ñoo si mën a dox tànk jàmm nañu jóg dox si tànk jàmm journal bi nee na nag li jaaxal gaay mooy kilifa diine yi nga xam ne ñoo noppi ci mbir mi kaay gii di Vox nee na député Seydou Diouf mi nga xam ne moo jiite commission des lois ci assemblée nationale këram ca Tëngéej dañu koo taal yéen a kaay gii di L'As ñu koy fekk fa Mame Makhtar Gueye ak Abbé ñoom ñoo ngi dox tànki jàmm gis nañu Ousmane Sonko waaye mënuñoo gis Adja Sarr L'Observateur nee na kilifa yi nga xam ne ñooy dox tànki jàmm tey jii danañu gisante ak Adji Sarr yéen a kaay gii di Source A ñu xëy fekk fa Serigne Saliou Mbacké doomu Alaaji Bara nee na nag état bu Sénégal moo war a génne loxoom ci justice bi bàyyi justice bi def liggéeyam comme ni mu ko doon def ci yeneeni dossier état génn ci loxoom ci biir yéenekaay gi nee na mbirum Ousmane Sonko mi nga xam ne moo xew digganteem ak Adji Sarr mbir mi daal yoon rek moo ko mën a leeral yéenekaay gi nee na tension sociopolitique bi yëngu na moo tax Serigne Sidi Mbacke alxuraana moom gis na ne Macky Sall boo muy tuule mu dem de gis na ne mbir mi giraawali mën na ci am de yéenekaay gi de mu ñu xamal laan ñi nga xam ne nag ñooy ay jegeñaale Ousmane Sonko ñi ci jàpp daal bari na lool bari na loola waaye nag ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ñoom nag nee nañu daal soo muy tuulee danañu nag bloqué li nga xam ne mooy système ndax nag mi nga xam ne teg nañu ko loxo ndax kuréel gii di G20 ak waa ñoom sax nee nañu daal dinañu wéyal nag amal ay grève yéene kaay gii di Libération nee na nag ci Ndakaaru diggante àjjuma ak samedi lu toll si ñeen fukk ak juróom-ñaar ci ay jegeñaale Ousmane Sonko yoo xam ne teg nañu leen loxo ñii ay étudiant la ñii ay chef d'entreprise lañu ñii ay délégué médical lañu ñi ay professeur français lañ ñii ay agent Sénélec lañu ñii ay commerçante lañu yéene kaay gii di Les nee na Assemblée nationale ba léegi ni joxagut ki nga xam ne mooy juge bi maanaam lu koy firndeel ne Ousmane Sonko dina nañu malaanu kii gi gi de Le Quotidien nee na am na benn policier ak benn gendarme boo xam ne ñoom ñaar ñii la ñu njortu ne ñooy jox Ousmane Sonko ay xibaar maanaam ñoo koy wax lu xew ci police bi ak lu xew ci gendarmerie yéen kaay gi di réew mi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu réew mi FM changé na nag programme andi na programme bu yees boo xam ne bu mucc ayib la ci lu jëm ci wàllum émission yi ak lu jëm ci wàllum animation beek lu jëm ci wàllum rubrique bi maanaam programme mu réew la ñu changé réew mi Quotidien xëy duñu ko xibaar naan ñu coordonnateur bu yees bii di Jacques Mactar Gomis moo fa jaar